al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillah alhamdulillah wassalaamaani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ñoo ngi tàmbale sunuy kàddu ci suñu borom di ko sant di julli di salmal ci ab yonantam ak ñooñam ak sahabaam mboolem seen ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbokk yëpp nuyoob islam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nu am mbégte wéy ak yéen niñ ko baaxoon a def bisu jot ci koor gi benn xadis bu wér bu jëm ci wàllu koor tey nag la ñaar fukk ak juróom-benneel euh, ci xadis yooyu euh, ci xadis yooyu dañuy ñëw ci xadis boo xam ni yaxyaa moo ko jële ci Malik mu jëlee ko ci Naafi. mu ne abdullahi ibnu umar radiallahu anhuma nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama farada sakaatal fitri min ramadana ala annaasi saan min tamrin aw saan min shahirin ala kulli xurrin aw abdin dakarin aw unsa min almuslimina xadis boobu la ñu jël tey xadis bi sax danañ ko fekk ci saxiixu Buxaari yu ci junneelu xadis ci junneelu xadis ak juróomi téeméer ak ñett mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa zakaata fitri saaxan min tamrin aw saaxan min saxirin ala al abdi wal urdi wa dakar unsa wa saxir wal kabir min al muslimina wa amara biha an tuaddi xabla xuruji naasi ila salaa ba tey dañu fekk ci saxiixu Buxaari ci mille six mille six cent huitième xadis xadisu abi saïd xadri an abi saïd alxadri radiallahu anhu mu ne kunna nutiha fi samaani nabi sallallahu alayhi wa sallam saaxan min taamin aw saaxan min tamrin aw saaxan min saxirin aw saaxan min zabibin ba tey xadis boobu tamit moom itam ñëw na euh, ci lu jëm ci euh, muurum koor xadis boobu tamit dañ ko fekk ci al muwatta muwatta imaamu Malik kon muy xadis boo xam ni dafay jëm ci mburum koor ba tey sax ñëw na ci euh, sahih Bukhari ci mille cinq cent neuvième xadis ñu jëlee ci ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam amara bi zakaati fitri xabala xuruji naas ila salaat ba tey am na ibnu Abbas indi na tamit xadis mel noonu bu jëm ci zakaatul fitri tey wax xikma bi tax nag ñu yoonal ko mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqatul fitri tufratan li saa'imin laqi wa rafasi wa tu'matan lil masakini faman adaaha qabla salaati fa hiya zakaatun maqbulatun wa man adaaha ba'da salaati fa hiya sadaqatun min as-sadaqati rawaahu abu abu daawuda al albani wéral na ko kon gis nga xadis yëpp loolu lay wax bu njëkk bi dana yonent bi farataal na mm, muurum koor ñu war a joxe saax ci tàndarma wala saax ci dugub mu war ab jaam ak góor góor ak jigéen mag ak ndaw mu digle ñu génne ko lu njëkk ñuy dem ci julli gi bu dee ci xadis Abu Saïd Xadri yi mu ne daanañ joxe daanañ ko joxe moom muurum koor ci jamono yonent bi saax la ci ta ci ñam wala ci tàndarma wala saax ci dugub beneen bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa digle ñu génne asaka ji asaka yi mbirum koor lu njëkk ñuy dem ca euh, julleekaay ba beneen addis bi mu ne yonent bi sallallahu dafa farataal euh, mbirum koor ngir laabal aji wor yi ci caaxaan yi ak euh, yi muy def ci koor bi doon ak xëy xewal lu ñu xewloo ñeel miskin yi ku ko joxe njëkk ngay julli asaka mbirum koor bu ñu nangu la ku ko joxee ne ginnaaw julli sarax la euh, ci sarax yi kon gis nga mu ngi noonu moom sadaqatul fitri te mooy murum koor ah, xaddis yu wér yëpp dafa aju ci murum koor dafa aju ci murum koor nga gis ne suñ borom mujj weer gi daa dégle ñu joxe ci mbirum koor dugal ko ci jaamu yàlla muy julli korte gi ak kàbbar yi ñuy kàbbar ak tudd ko ñuy euh, tudd yàlla murum koor googu mooy tam ko def ngir jariñ foqaraaw yi ak miskin yi suñu def ko tamit muy lu woyof loo xam ne ñëpp àtt nañ ko ndax bopp bu ne benn saa la a joxe danañ ñëw ci saa ci la gën a not ci la waa dëkk ba di jëfandikoo góor ak jigéen mag ak ndaw ñu war koo joxe lu njëkk ñuy dem ci jullikaay ba nga xam dañuy fexe bis boobu ñu woomal ñu woom ñu woomloo ñu ñàkk ñi ñu jox leen lu ñu mën a euh, satisfaire seen besoin ci bisu korite boobu moo xam la ñu di jox nag dugub la wala tàndama la wala lu mu mën di doon kon gis nga euh, mi ngi noonu nga xam ne kon boo demee ci suñ kër yi nag moom day wax ne dafa war moom mburum koor dafa war waaye nag ci war goo xam ne nii euh, ci war xam ne nii moom itam sunna moo ko waral boo ñëwee sunu téere yi ñoom loolu la ñu wax kon ñu ngi noonu moom sakaatul fitri te mooy murum koor dégg nga ni ñu ko waxee sax wa awjabu aydan sakaatal fitri wa xadruha saaun bi fardi sunna nga xam ne sunna moo ko farataal nga xam ne baydu yi wax na ci at tey murum koor am na ñu wax ne waajiba la am na ñu wax ne sunna la wal awal nag wal masuuratu mooy uh, waajib bi nga xam ne ku digal ne masroor masroor da ngay weddi ku xam na nag ne am na waaye nag da ngaa dinga euh, ko joxe maam euh, nga dañ ko yoonam waaye nag nga dingat ak waram laa yu kon mu ngi noonu am na ñu koy wooyee sax sakaatul abdaan am na ñu koy wooyee sakaatul fitri kon ñu ngi noonu li gën a not nag ci la waa dëkk bu dundee lañ koy joxe ñu di ko jox nag képp koo xam ne uh, gor nga fakkiir nga di ab jullit kooku lañ koy jox moom asaka yi murum koor wax naa ci saa googu ñu wax moom it nu mu toll luñ ko doon xayma ci ay kilo nu mu war a toll moom saa boobu boo demee ci risaala da nga ko fekk mu naan wa zakaatul fitri sunnatun waajibatun faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli kabirin aw zaqirin dakarin aw unsa urrin aw abdin min almuslimina saahan an kulli nafsin bi saahin bi saahin nabii sallallahu alayhi wa sallam mu ne murum kor daal mm, lu war la sunna su war la yonent bi sallallahu moo ko farataal mu war na képp ku mag ak gone góor ak jigéen góor ak jaam képp koo xam ne jullit nga rek moom itam mm, war war na la kon muurum koor mi ngi noonu xadis bi mu indi léegi nag mën nañ ci jëlee ay ñàngal xadis bi mu indi léegi mën nañ ci ñàngal insha allah ñu ñëw nag ci loolu kon muurum koor mi ngi noonu danañ ko wax sakaatul fitri di ko wax sadaqatul li tax ñu yoonal ko mooy fexe ba néew ji doole ji bokk ak way oom yi seen bët ak seen contentement ci bis boobu mooy nga xam ne mooy bisu bisu korite ba noppi nag laabal aji woor ji lépp lu amoon ci ay wàññi wàññi ak i caaxaan ak bàkkaar ci koram googu ak feeñal euh, sant yàlla sant xéewal gi nga xam ne moom la ñu yàlla may ci ñu motale weeru koor bi war ko euh, taxawe guddi gi ak jëf ci mboolem yu baax moo tax yonent bi ne sakkaatul fitri cooratun mi saayimi min al-laxwi war rafasi wa toxmatan lil masaakin kon gis na mu ngi noonu ñu ngi ko waral nag yonent bi mu ngi ko farataal ci ñaareelu at ci kàddaay bi ci ñaareelu at ci gàddaay bi euh, lañ ko farataal moom murum koor nga xam ne kenn ku ne war nga koo génne borom kër gun nag war nga koo génne nga xamee ne euh, ñooñi ñi ñi nga war a dundal yow la yaar na ko war a génneel danañ ñëw nag ci ni muy toll saax boobu bu ñu ko doon xayma tey euh, ci ay kilogramme kon xadis bi ñu indi tey muy farada sakaatul fitri Euh, te ñu jëlee ko ci Abdullah ibn Umar mu ne ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam farada zakaatal fitri min ramadana xalana saaxan min tawrin aw saaxan min saxiirin ala kulli urrin aw abdin dakarin aw unsaa min al muslimin xadis boobu mm, rawaahu jamaa ahmad netti na ko buxaari netti na ko muslim netti na ko abu daawud netti na ko ak tirmisi yu netti na ko an nisaa yu netti na ko ibnu maaja euh, nett na ko ñoom ñëpp nett nañ loolu euh, kon farataal yoo xam ne nii sunna moo ko farataal sunna moo ko farataal nu muy toll saaxan min tamrin aw saaxan min sahilin bu la neexee nga génn ko tànn ma bu la neexee nga génn ko ci dugub bu ko defee nag foqaay leen dëkk dëkk bu ne euh, dañ koy génne ci la gën a not ci la ñuy dundee bu dee senegal li gën a not ci la ñuy ceeb la ak dugub bu ko defee nag ñan la war gor jaam góor jigéen mag ak ndaw yii comme ci doon tagay julli rek ah moom war na su ko defee nag euh, waajur yi parent bi moom moo koy génneel euh, ñim war a dundal bu fekkee mënu guñ ko danañ jógee ci hadis bi ne zakaatu fitri fardun waajibun comme su déggee ci ne sunna moo ko farataal ndax li mu wax ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te dañ ci déggee ne asaka ji du war lu dul du wér lu dul ci mujj koor gi ndax li annahu waxtu fitri mooy waxtu la koor gi di yu ñu war a wooree kon loolu it mu ngi noonu dañ ko war a génnee moom mooy saa saa wax naa danañ ci ñëw ñu déggee si ne kon wóorum koor dafa war ci bépp jullit waaw ci boo xoolee li mu ko defaaye tudd koor tudd jaam tudd gone tudd mag tudd jigéen tudd góor bàyyiwul kenn kon daa wa dafa wax ne waajibatun ala kulli muslimin dafa war bépp jullit dañ ci gis ci àdduna tamit minal muslim danañ gis tamit ci àdduna yi ne dañ koo digle ñu joxe ko lu njëkk ñuy dem ci julli gi lu njëkk ñuy dem ci julli gi ñu joxe ko loolu yëpp lu ñuy jàngee la ci xadis bi kon daal mburum koor war na ku ne jëpp jullit rek wala la bu ko defee borom kër bu ne nag moo fa war a génneel ñamay dundal nga xam ne ab dundam ci ñoom la war mooy ko war a euh, génneel mooy ko war a génneel nu mu war a toll nag mooy saa min tamrin aw saxirin noonu la euh, toll saax nag bu ñu ko doon calculer ci jamono ji ñu toll euh, borom xam-xam indi nañ ko ci ni mu war a toll ci euh, ay kilogramme wax nañu saax mooy ñeenti mudd min am daal di nabi sallallahu alayhi wa loolu mooy saax saax nag lenn la ci yi ñu daan ci nattukaay yi ñu daan jëfandikoo ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàpp ak ci euh, sangu farataag ak yu demee noonu bokkoon ci feesukaayu ahlul madina ñu daan ko jëfandikoo ci wàll commerce yonent bi sax ñaanal na barke euh, waa madina seen sax boobu ci hadis boo xam ne buxaari ak muslim euh, net net lañ ko allahuma habib ilayna al madina ka hubbina makkata wa sadda wa saxiha fi saahiha wa muddiha kon gis na mu ngi noonu kon ñeenti mudd moom ngay moom ngay boole mu doon saax ñeenti mudd moom ngay boole mu doon euh, mu doon saax saa nag buñ ko dee nat nattalee ci ay kilogramme euh, à peu boo demee ci inda jumhuril fuqara yi minal maliki wa shafi wal anabila la ëpp la gën a bari ci fuqaaw mali maliki yi ak saafi ak xanaabila la ëpp ñoom ñoom ñi ngi xayma saa ci euh, deux kilos virgule trente cinq deux kilos virgule trente cinq moo doon mm, saa nga xam ne bopp bu ne loolu lañ ko war a génneel bu dee nag xana xanafi yoon xanafi yoon yi ñoom bi ñu nattalee bi ñu appafaree saa dem na ci trois kilogrammes virgule euh, vingt cinq trois kilogrammes virgule vingt kon li tàmbalee euh, deux kilos virgule trente cinq ba deux kilos cinq cent ba ñenn ñi sax deux kilos six cent wala sept cent euh, am na ñoo xam ne wax nañ ne loolu euh, mooy tolloog saa boobu nga xam ne kenn ku ne da nga ko war génne kenn ku ne tamit ñi ngay war a dundal yaa leen ko war a génneel kon mën nañoo yem foofu rek ngir bañ a guddal ci liñ doon wax ci mbirum koor ñu xam ne sallallahu alayhi moo ko digal moo ko moo ko moo ko moo ko farataal ndax dañu ko farataal sunna kenn ku ne war koo joxe mu doon luy laabal aji woor yi muy laabal korom googu ci rëcc-rëcc ak manquement yi ci am waaye tamit ñu di ko jox ki néew doole ci aajoo ko ngir bis boobu ñu fank ñu fankal ko muy wër di laaj mu mën a am lu ko doy ci bis boobu wax nañ ne képp koo xam ne nii ah, ci fokk yi ñoo am nga bisu korite loola doy dépense yow ak sa njaboot bu amee la si topp rek loola génn moroom koor war na la wallahu taala alam yàlla nañu yàlla defal ñu mottali koor gi dañ ko tàmbale woon te suñu borom nangol ñu suñu mboolem ñu jëf ci koor gi te may ñu ñu mën a génn asal burum koor na mu waree te yàgg ko fekke wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.